asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndax waxaabu yaa saatu yaa maliki li tawhabu ya wasulu ya anati fi ajil ajilan mulki shi muhammadin hatta utuma li dini lahi akara ibni sulwain tuwa wa min yuqini akbara utu lilli samaskara kasama waradi ahu bi amsakin ya rub mashkuna ajib salib min hasan di muhammadin wa tawfiq نويت ما يجدد سنته القراء وإني أحمد كن صلى الله عليه وسلم وبركاته ينجي سياره ñëpp waaye man dëgg tabiru xaak am abdu xadim ak am sa xadim fépp rek ndax naa waxtaane na na ko yaatu bu baax waxtaan wi ñu jëm ci li ñuy tuddee amul kalaam ak tawxiid maanaam ñu bari ci noonu moo xam xulus dañ koy jàng ne ne tawxiid la te fekk ne du du du tawxiid amul kalaam la amul kalaam moom manes na ne kon leer na ci ne rek moom mooy lu ñuy dagg sante ci pas-pas yi ngir layal sa pas-pas nga xam ne ilmu kalaam ci bit la am am njëriñ waaye amul amul njëriñ ci ci biir ki ko ki koy jàng da koy gànnaayu ba bu dajeeg ba beneen borom pas-pas bu mu bokkulul pas-pas ku mu bokkulul diine islaam mën a wax ak moom waaw maanaam nga xam ne yàlla kenn la kooko nasaraan yi ak yahud yi lay waxal xeet xeet yi mel noonu tawxiid nag mooy li jóg ci alxuraan nga xam ne alxuraan rek la philosophie duñu dugg ci dara dara dugg ci moom mooy mooy mooy lu leer nañ ñi ne wa in saaltahum man xaqa samawaati wal arda la yaquluna allah yàlla nee na fan kooku jërul ay théorie yu gudda gudda yu asmaa yàlla wax naa yi yooyu yëpp maanaam ay ay tegtal la ci ne yàlla am na waaye ilmu kalaam dafa am dafa am benn théorie boo xam ne man damaa gis ne damaa gis ne faaw ñu changé ko moom xiyaabul alxaayib bi sahid bu ñu ko xoolee bu baax a baax dañuy gis ne moom damay gis ne man baaxul yaabul asaahid mooy nit xaayib mooy yàlla yàlla du xaayib di yàlla moom du xaayib mooy yàlla xaajir dëgg la loolu loolu moom dafa woyof toy xiyaasoo sa alxaayib saahid bu ci dikkaatee saahid bi moom ko ne xam ne ne ko mumkin la du kaamil ku manki la kooku noo koy xiyaase ci ku mat ngir bëgg xam ku mat melokaan woo gis fi jox ko koy foofu kon ma ne kon jumbul buñ ko doon changé dañ naan al istidlaalu bil mumkini bi bi mumkinil wujudi alal mawjudil xaqaani al istidlaal bi bi mumkinil wujudi alal mawjudil xaqaani nga xamante ne yow bi nga xoolee sa bopp xam ne sa baay bindu la sa yaay bindu la nga ne xanaa kon gay na gi ma bindu nga xool xam ne gay na gi bindu la kon nga xam ne kon am na ko la bind nga daw jëm ci kooka di di jéem a di gëstu pour découvrir kooku comme doon ngay istidlaaloo ci al wujud mumkin yow ak rab yeeg monde bi ni mu amee nii biddiw yi asamaan suuf si yéeme yooyu nga di xool moo lay yóbbu ci wala in saaltahum ña ne gëmuñu yàlla maa xalaqa samaawaati wal arda la yaquluna allah ñëpp xam nañu si ku ñuy wax yàlla moo ko bind. yàlla yàlla yàlla ab ab ab conception la waaw tasawur la nangam nangam demoon ci sëriñ si ñu tuddee ko roog sen mooy lu kawe roog lu nëbbu sen lu kawe mooy te moom al al al al mutaali al xafi mooy lu kawe kawe wala al xafi al mutaali nga xam ne kon si séeréer ba loole mu wax roog sen kooka mooy yàlla ko kooka yàlla léegi léegi gi kon xiyaasu alxaayib sahid kooku moom gën gënut moonu boobu boobu terminologie moonu dugal ci ilmul kalaam ñu naan ñu naan yàlla nangam asifaatul nafsiya wal maanawiya wal maani sifaatu nafsiya wal salbiya wal maani wal maanawiya misaal sifaatu salbiya moo bi existence bi lay wane am sifaatul maanawiya day wane nu mu meloo wala si sifaatul maaniya si sifaatul maanawiya lu waral kaw nu xaajan kaw naa mooy mooy ne daa amoon ñu gis ne ci ci alxiyaasu xiyaasu suus xay sahid waa ji mën naa nit ki ko am xudral ci bind waaye bindul nit ki ñu ne ñu ne kat mën naa bind waaye ci waaye bindul ñu ne waaye fii nag ñu ne yàlla moom man ngi man da da koy utiliser maanaam seen seen principe boobu moo moo leen sonal man asmaul husna yi mooy lan ñaan lañ naan sifat yi al waajibatu lillah déedéet du waajiba lillahi al waajibatu tawafuruha عند الإنسان المؤمن الذي الذي يريد أن يتعقل ربه أن يتعقل daa bëgg a daa bëgg a xam daa bëgg a xam ku yàlla xelam ne ko nag yii daal melukaan yii faw mu am mu am bu amul du yàlla faw mu dund bu amul du yàlla communication faw mu am fu diggante mooy day wax murid faw mu nekk ko namel koo xam ne kenn du ko forcé xeet yi mel noonu léegi loolu loolu nun la nun ñooy xalaate ne ki nga xam ne mooy ki mu gën a mag alkaamilu ak alkaamil rek mutlaq alkaamil mutlaq rek kooku moom faaw mu am lii moom ñu ne waaw loolu tax ñu wax loolu ñu ne waa ji dafa dem ci àll ba fekk fa ab ordinateur mu bës ci mu gis bouton mu bës mu andi ay image ak andi ay ay ay son awalan ordinateur bii kan moo ko defar gaynde ndax muus mi la wala ndax xar mi la ndax segg gaynde yàlla xanaa moo gën a mag kon gaynde moo ko ma xool gis ne gaynde gaynde amul xabli bi gaynde amul capacité def loolu def loolu ndax benn rek son bi nga xam ne boo ko génnee muy wax wax yu leer di wax ay wax nga ngare gaynde gi du wax waaw léegi léegi gi gaynde gi amul xel te lii moom logiciel yi ñu ci def nii xel la te gaynde gi amul xel waaye gaynde gi moom dana jóg jëm ci fàdd ngir lekk waaye waa nga xam ne moom moom xariisa la ji maanaam léegi ci koy njaayeen lay yor bu bëggee jëm jël mu jeex waaye nag moom waaye xamut lu muy sottal loo xam ne dañ daan ko dama ko bëgg mu ne bëgguma waaye dama xam ne am na njëriñ kooku mu xam ko nga xam ne ne kon nga ne ah kan moo ko ko defar kon nga ne kii daal ki ko defar ko am la kuy dund la boo ma doon du ko man bu dundoon du ko man ay gis naa bu gis bu gisutoon kon kon image yi kon couleur yi nangam ak yooyu kon kon du ko mën liggéey day dégg ndax kon son bi du du mën a am borom na mel la ndax kenn kenn kenn kenn kenn forcé wu ko ci xet yi mel noonu yu bëree bëri nga ne waa ji waa ji al mu'min bi moo taxaw di xool léegi lii am kawtéef bi am ku ko war a def ki ko war a def nag ci xelam faaw kon nangam capacité am ñii la war a mel bu capacité bi kon du ko du ko man ñu indi la yooyu yëpp gaye gi nag asma asma asma ullahi alxusna yi gaa yi di ko xool nangam yu bari nga xamante ne tur yu baree bari la al muzillu al kabiru al mutaal al qahaaru al mumiitu al muhyi yu bari yooyu loolu asma ullahi alxusna yi gaa yu bari dañ dul seetlu ne alaaqaatun wa nisabun bayna allahi wal aalam asmaullahi alxusna alaqaatun wa nisabun bayna allahi wal aalam asmaullahi alxusna alaqaatun wa nisabun bayna allahi wal aalam asmaullahi alxusna ay alaqaat la almuhyi loo gis mu dund ku dul yàlla mooy moom moo ko dundal almumit koo gis mu faatu bul werante moom la léegi léegi loolu alaqatul laahi bil alam mooy ne mooy taasir lu am mooma lu am rek mooma amut benn werante xel yëpp ko nangoo la yaquluna llah ku rey waa ji la yaquluna llah ku andi doom ji la yaquluna llah ku wéradil waa ji la yaquluna llah ku ko wéral la yaquluna llah ku jox waa ji wërsëg la yaquluna llah ku ku tax mu ñàkk la yaquluna llah ku ku tax mu ngelaw la yaquluna llah ku tax mu féex la yaquluna llah ku tax mu tàng yaqulullah nawet bi lu ku ku ko neexal la la yaquluna llah antum tasmauna am na sax nga xam ne nga xam ne kon ala xayr léegi nag noonu ak moom kan moo la bind yàlla kan moo la may yàlla ku la jox xéewali yàlla ku tax nga wér yàlla ku la wér dir yàlla lépp bu jógee ci kaw yàlla ala xam ak alam bi sola xusna yi moo la koy défindiral waaw léegi nag bu dee bu jógee ci noonu son nisba ak yàlla noon ay jaam lañ yoo xam ne lépp lu am yàlla kon alaqaatun wa nisabun bayna llahi wal alam mu jaari jeex asma lal usna yooyee doonekat yàlla mumumit la yàlla jabbaar la jabbaar moom suñu leeral na ko mooy koo xam ne dafay defar lu yàqoon jabru jabu kasiir lu yàqoon waaye du nag kuy pajantu mutakabbir du du firi ni mutakabbir nga xam ne day riirilu déedéet noonu déedéet muta mutakabbir mooy aljalaal yàlla boo ko xoolee kabirul almutaal boo ko xoolee da ngay tiit boo dee teewlu yàlla monde bi ni mu demee demal ci armeel ya teewlu ab néew ñu di ko gas di ko sóol kooku jalaal ja da ngay tiit kabir mutaal du du firi du firi na kuy rëy rëyul ya taala allahu ama yasifoon yàlla du rëy rëyul déedéet ku rëy rëyul yàlla amul di nit di amut amut ku muy nattangoo yasir ko fan aat amu nattangoo di ba tax muy rëy rëyul nga xam ne loolu sunuy tasawuraat sunuy gisin ca bu wóor yaag yooyee fi ñu toll moom lañ jël tëgg ko noonu loolu nag lu xóot la xool la maanaam dama dama bëgg foofu ñu dellu rek ci tawxiidul xaalis su fekkee wax tëj tëjridu tawxiid yàlla rek jeex na qul huwallahu ahad yàlla kenn la ndax qul qul huwallahu ba mu ko waxee allahu noppi na ca ñëpp xam ne ko ndax lu xew ñu ne lay xul na laa kon kon koy jeex na qul huwallahu mu ne comme doon karay ka nekk Sénégal karay ka nekk Amérique kay jox corona Trump mu ne ci biir palem ba am am ay médecin yu kii maa ne ay ay ay ay ay aji sa appareil yu kii yàlla ne corona moom kat danaa ko dugal ci yaramu Trump kenn mënu ci dara ku ko laaj ku tax mu dal ko la ñu lay yaquluna la kon ko koo kenn ka qul huwallahu ahad kenn koo ki nga xam ne moo jox corona Trump noonu it buñ dee màggal buñ mën dee màggalee nañ ko ba xel ginnaaw kee jumtukaayam yu xarala teewut ba corona dal na ko kon kon nag ay bàyyi xel masque yeeg lépp mat na ko kat kooku kon la xat yàlla comme doon allahu samad yàlla mii nag moom mooy wér waaye te moom kat du lekk donaan de doo ko jox addiye mu lekk doo ko jox mu doo ko tabaxal ab ab ab jumaa mu dëkk fa dara waaw waaw waaw moom ndax am na am na relation kenn ci am ko ko ko ko yilif ci dara. ku muy xool lam yolit jurul wala mu yolat kenn juru ko yéen ñëpp ama sama jàmm ngeen wala mu yëkkun lahu kuf an yàlla amul ndend koo xam ne daal nefee yàlla nefee déet déet yàlla doo nga am li ci des lépp amul al wujudul mumkin du dara sama baay waxoon ne lu jëm mu far lu jëm mu far lu jëm mu far loo fi gis mu jëm du sero day far moom day day naaw yëpp tabax yeeg nit ñi ci am léppay naaw noonu ñëpp dañuy naaw far far moo tax wala waxoon ni bind yàlla mindaa fon lu ñu bind la lu ñu bind aw rëdd la day far de aw rëdd la mindaa fon la existé wut existé wut xoolal rëdd wi loxo bi koy rëdd rëdd ci la existation bi ni muy existé woo mi ngi existé woo ci waa ji bind ci la bind wi ci la rëdd wi di existé woo boo xool boo yàlla moo tax ñu am ci dimension boo xoolee yàlla boo boo nu xoolee boo nu xoolee yàlla rek am boo xoolee yàlla dara du am kon wala mi ko loo ko manaat nga xam ne nga xam ne kenn niwul niwul foofu itam yàlla kana lahu wala si ama waaye sëñ bi lii ak ay yomb ñu xam ko ne ay mo kalaam ay nit a ko wax rek ndangam maanaam maanaam dañoo bëggoon a rek tegtalu ci ne yàlla am na yàlla leer na wala in saaltahum man xalaqa samaawaati wal arda yaqul la yàlla du nga am ilmu kalaam ak tawxid bukkul tawxid mooy mooy mooy alxuraan jii rek mooy li xel yëpp xam rek rek rek rek tawxid bu dee ci téere mi ko jàngale lañ ci gën a soxla yàlla xamis na am na moom yent bii kay taxaw ne ab yonente laa naan damay am communication ki nga xam ne mut lax laak noonu ko nekkul ci sama nag espace kooku la ñuy coow naan lu lu yow tegtal yooyu indi mu indi mu wax ji sax def lu def loo xam ne xel xamu ko ndax luwaay yi yàlla teg ci adduna bi wuute nag mu ne ah man la kat subhaana la si asra bi ab ji lay laa yàlla ne man maa ko def ñu ne ko askay naa ko yàlla def kon kooku ma nekk ndax luwaay yi jàkkatëroon luwaa du dara moom aada la ni ni ni ko imam xasee waxee aada donc la bu dee imrus doom rek yaakaar ne xanuun moom lu jeexalal loo xam ne mën na si ko dindi dafa dafa te on turul ilahi bi di waaw yàlla programme bi ki ki ko def man mën na koo changé yàlla yàlla lay teg programme bi bu bu tegee programme bi problème am ma tikk tegu mu daal di koy changé daal di bàyyi bu bunt bi daal di ubbi ko gaa yi xool mu daal di tëjaat ngir ngir xel mën a liggéey sëñ bi loolu leer na nañu de loolu leer leer na nañu ko daal asmaullahi l xusna ala qaatun wa zabun bayna allahi wal alam qiyaasu saahid alxaayib bi saahid kooku moom kooku moom qiyaas la bu baaxut baaxut moom baaxut andi nañu problème luy lool te man yaakaar naa mën naa yóbbu ni sax forut mu al mujassima yi waaw ñoo xam ne jàpp ne yàlla matière la ni ko si si defee jàpp ne matière la mbaaru ñoom boobu kii mooy mu bëri ku yóbbee shirku billahi lay mën a andi bu baax a baax naawusu billahi min ashirki jëli wal xafi bi hurmati la ilaha illa allah muhammad sallam